taalisuha aj ñetteel seen xirsun mooy xir xalaa talabihi ci càkkuteefam kamis li kal bi niki kem xiru xaj fi matalabihi ci càkkuteefam ñetteel bi mooy xam-xam mi ngay wut na ci xir lool loo ci am rekk xeeb ko bul def ko gaaw a doylu gaaw a doylu day yàq xam-xam li nga xam ni moom la xaj amee xiir xaj dafa xër lool kii sàkku xam-xam xër lool ci xam-xam bi muy sàkku bokk na ci yi ëpp solo ci moom ba ci sax kiy jàngale bu gaawee doylu rek nga xam ne ka muy jàngal lu mu xam mu defee ne la mu xam doy na wala bu dee kuy tari sax nu mokkale rek mu daal defee ne na mokkale doy na loolu lépp day yàq muy kiy jàng muy koy jàngale dafa war a amu lool nga xam ne lu ci am rek du ko doy di séentu ndolleen bu dee jàngale itam ka muy jàngal lu mu xam mbaa lu mokkal rek mu jàpp ne mën naa wees foofa bu baax a baax foofa du yamukaay na yootu jëm ca kaw li kaw raabihuha aji ñeenteel seen xilmun mooy lewet ka mislil xirri niki kem muus ñeenteel bi mooy booy sàkku xam-xam da ngay amee ak lewet amee jikkoy yaaram mën a jëflante ñépp ak rëy wala ñaaw jikko da ko yàqal rekk na lewet mën a leen jëflante ñépp mel ne muus xam nga muus daanaka amalul nit ñi benn njariñ waaye nag lewet gi mu lewet tax na nit ñi di ko wut di ko bàyyi ci seen kër di ko toppatoo di ko jox añ ak reer te defal leen fa dara lu may rek lewet gim lewet yomb àndal rek ñu bàyyi ko fa kon nag kuy sàkku xam-xam na amee lewet googu xaamisuha ak juróomeel seen idaamatun mooy saxal li sabri ñel muñ ani nisaay walis jigéen ña as saarifaati li ñetti way wëlbati ay yité ka sabri xinsiirin niki muñuk mbam xox bila tahamumin ci dul ak yité wo juróomeel bi moy na mëna muñ walu jigen lu jëm ci banexu sey nako mëna muñ bu baaxa baax bu mu jekk di waxna sama doomi nijaay ja wala sama doomi bayja ja bëgg tak damay bañ kenn jëkk ma ca lu mel noonu na koy moytu moom daal ko muy wut lu baax na fexe ba am rekk bu ko dara wëlbati rawante na nag lu aju ci wàlluk jigéen lu aju ci wàlluk sëy lu koy nuru daal na ca mën muñ ba mel ne mbaam xuux mbaam xuux dañuy wax ne ku mën a muñ la ci googu wàll na ko roy nag ci mën a muñ rekk lépp luy bànneexu jigéen bu amee li muy wut rekk gis ku mu àndal ci jigéen ñi te yàlla tax dana jàppandi incha allah saadisuha aji juróom-benneel seen sabrun mooy muñ xalaa zullin ci toroxte abadan faaw sabra ximaarin te muñu mbaam fàttalu boo na ngeen sàkkoo bi di ci yile arrachada jub ga juróom-benneel bi te moo ci mujj nag mooy mu mën a wéye lu ne wàllu lekk ak wàllu naan ak wàllu sol ak wàllu tëdd du ca taamu dara lu ci am rek baax na li nga xam ne moom la mbaam mën a wéyaale lu ne moom mi sàkku xam-xam na noonu mën a wéyaale lu ne wa haadihi shuruut yi lay sart laatu xassalu defu leen mën a amal illaa bi kaddin ndara ci ab coona wa jihaadin ak jihaad yaxsulu kook dana am muy nag juróom benn sart yi kat yombut faaw moom muy sàkku xam-xam muy jéem a bëreeg bakkanam nangoo sonn bañ mooy tax mu mën a jéem a matale juróom benni sart yi faslul li ab dog la fil ahdaa yi noon ya al arbaxat ya di yent ya ayuha shubbaanu yéen waxambaane kambani jaahidoo na ngeen jihaat ak xaydan ay noon arbaxatan yu di yent li kay ngir ngeen tuufu mooy ngir ngeen am rek bin xuddaa ci jub way wi ci nafsan wa dunia nafsan nek badal ba mënees naa jàng nafsun wa dunya tuma shaytanun laayin nafsun bakkan wa dunya ak aduna tuma shaytanun top shaytané layinun kudi kuñu rabbu ma'al hawa andak ak banex aha iqatun aji galam koore lañu anil mu'ayni walis yalla mi aji dimbalé lami aji dimbalé ki jang nak muy setlu ne kiy jàngale dana faral di tudd ay baat noo xam ne du bokk ak nañ ko maase ci yaxub téere bi mel ne bële ne yaa ayuha shubbaanu in xiftum xajal mu daal jàng xajalan baña jàng xajal wala faqaddimoo taalluman xalaa xamal moom mu jàng xalaa xamalin mbaa fii nu toll nafsun wa dunya suma shaytanun la'in mom mu jang la'inun babu ko shaytanan jito mu jang la'inan lolu bu ki jangale da joom da ko setlut da am baat yo xam nañ ko massé way waré ko tax ay buñ ko doon jang ben ben duñ ko nona su ko defé nak mom tay firi ay benn benn baat baat bu nekk da koy maas la nga xam ne su nekkutoon ca way wa moom lañ koy maas loolu rek moo koy waral kon bu xàmmee loolu baax na su ko xàmmewul bu mu ko tax a soppi ab téeréem day wax ci dog bi ñeenti noon yi nga xam ne ñoo di nooni nit ku ne te nit war di leen bàyyi xel saa su ne bala ñu ko xañ texeg addunaag gu alaaxira te mooy bakkanub boppam bi ak àdduna ji nga xam ne ci la nekk ak saytaan bi nga xam ne yàllaa ko booleek moom tam nekkoon noonu maam aadama ba ci moom ak nag bànneexu boppam la muy bëgg te du lu ko amal njariñ nga xam ne bakkanam moo koy bëgg mu neex ci moom rek loolu mooy bànneex ñeenti noonu yooyu nag la wax ne ca dëgg-dëgg ñooy nooni nit ñooy dox digganteem ak yàlla boroomam lil kulli ñeel na kenn ku ne ci ñoom si junun ab kaso wa silaaxun ak ngànnaay yoon la mu bopp def na ko xam fa àdd xiloo na ngeen leen tàbbal ca kaso ba wa kasiroo te ngeen dammate seeni nganaay fatas la moo kon na ngeen mucc ñeenti noonu yi bu ci nekk daa amee kaso boo xam ne boo fexee ba dugal ko ca tëj ko ca du la mën lorati waaye nag kenn ku ci nekk ci ñoom yore na ngànnaay loo xam ne boo yeexee ba mu songe la ko soo faaw mu daaneel la moo mu ne kon gaaw leen damata seeni ngànnaay bala ñu leen a song te gaaw dugal leen ca seeni kaso bala ñu leen a lor fan nafsu bakkan ba tus janu def na ko tëje bil jooy ca xiif ba ak tawili bay aji yàgg wa ma laha deddi ko ñeel xaydun ab tënk maanaam ab jëng yoon lanu ba def na ko feeñal ndare mom mana bu may moom rek xiif ama silaahu haa dal nganaayam la allazi la nga xamne xadd tamnaaw baraana mu tere bi ci mom al mutiha aji top yalla ja min hudan ci jub fa shiba modi ab regaay dafa jëkke bakkan mu ne bakkan mom kasso bi nga xam ñu koy tejj bat la mënal dara moy xiif bo di xiif xiif bo xam day diggu doomu du ëpp ba tëlbati tey mooy too tëj nga sabakan kon ci kasso boo xam ne du la mën a lorate ngànnaay li nga xam ne nag boo yeexee mu songe la ko te bu la songee dal lay daaneel mooy takkoo ab reggaay bu fekkee da ngay regg yu nekk doo xiif benn yoon moom dalay fi saa wasi junu dunia kasob aduna xoslatun mooy beru bi ilmin ànd ak xam-xam wa xamalin ak li wajhi mu'til fahmi ngir jëmmi yàlla mi aji joxe ak dégg ama silahuha ndaal ngànnaayam allazi la nga xam ne tubiidu dana alage bihi ci moom fahu moom almuxaalatatu moo di ak jaxasonte fii xëyri mufidin ci lu dul aji jariñ maanaam ci lu amul jariñ rek adduna moom nee na kaso koy tëj ba du mën a génn lor la mooy ngay néewal sab jaxasoo fexe ba xam la nga war a xam beru nag di ko jëfee ngir yàlla loolu boo ko defee tëj nga kaso àdduna du la mën a lor ngànnaay li nga xam ne nag moom la àdduna yore te boo yeexee rek mu xeexe la ko dal lay daaneel mooy bari la jaxasoog waa àdduna jaxasoo boo xam ne manon na ñak amul lenn njariñ bari ak wa adun dal xeeti jaxaso yi nga xamne man na ñak amul benn njariñ moy waral aduna daw la yobale wasi jinu shaytanin qasat shaytané bila khilafin ci amul benn wuute zikrul ilahi modi tuddu boruba bóoru kay aji fekk almuhaafi kay aji jamale amma silahuhu ndal ngànnaayam la allazi la nga xamne ne dana songe bi ci ci moom han aji yalla fa ho mom al moo modi sagan seytaane non la bo xamne kasso bang koy la mën lor moy bari la tuddu yalla bo dee bari la fàttaliku yalla ci sa xol ak sa xel diko bari la tuddu ci sa lamagne tej nga seytaane ci kaso boo xam ne mënu caa génn ñëw lor la waaye moom it nag ngànnaayam bi nga xam ne ci la lay gaaw a songe dal lay daaneel fi saasa mooy boo sàgganee ci tudd yàlla boo sàgganee ci fàttaliku yàlla tudd ko daal moom may nga seytaane ngànnaay loo xam ne moom lay songe te bu la songe boo tuut daaneel la kaso lil hawa ñel banex sukootun modi nopi noppi walis la nga xamne lam yekku nekut da faidatin di borom njëriñ war na amaa ak xéewal amma silaaxuhu ndaal nganaayam la ëllësi la nga xamne yasulu dana songe bi ci mom shakhsan jëm fa kasratul kalami modi bari wax fil fudul ci tiaxan banex moy sopp lo xamne dalay lor rek mu ne moom nag kaso ba nga koy tëj ba du mën a génn lor la mooy téye soo làmmiñ booy téye soo làmmiñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba daal tëj nga sa bànneex kaso boo xam ne du mën a génn lor la waaye moom it ngànnaayam bi nga xam ne boo yeexee mu song la ci dal lay daaneel mooy bari wax ju amul tuyaaba bari wax ci caaxaan rek ak sax lépp lu amul tuyaaba bari wax ju mel noonu boo ko defee rek may nga sa bànneex ngànnaay loo xam ne mën na la koo songe te bu lay song rek boo tu dal lay gañe tatimmatul li ab mottali la fil xabbi ci ñaaxe al joxi ci xiif wa tarki shibahi ak bàyyi ab regaay daa bëgg a mottalee dénkaane bi soññe ci xiif xiif bu digg doomu tey moytoo regg alaykumoo dénk naa leen bil jooxi ci xiif da nga gis nag alaykumoo joo xam ne mënu su ñàkk jànge noona ndax mooy tax peese woy wi mat boo ko jàngee rek alaykum peese woy wa day manqué ji nag ci la bokk mel na ne amaat na yeneen yaar ca kanam inal jooxa naka xiif woo moom yi mooy la nga xam ne yu hazibu dana sellal almutiha aji bëgg jaa yàlla mu ne dénk naa leen ngeen ñeme xiif bu diggu doomu xiif bu diggu doomu te tax nga wér tax nga dëgër tax nga sawar moom rek mooy dimbale ku bëgg topp yàlla waji taxidoo na ngeen farlu fi talabil xalaali ci sàkk lu lew fa hu moom almuqarribu mooy aji jegeñal li dil jalaali jëm ci borom màgg ga mu ne na ngeen góorgóorlu ci wut lu lew ndax ndax ab julit rawante na ab taalibe sañuta jëfandikoo lu may lu lew nit mënuta ñàkka lekk ak naan ak sol ak fu muy fatu di fa fegu tàngaay weeg sedd bi te loolu lépp nag moom jullit bi moom taalibe bi sañu koo defee ci lu may lu ko lew rekk sañu koo defee ci lu araam sañu koo defee ci lu ñu sib mu nekkoon na ngeen farlu ci am lu lew te sax mu ne sàkku gi lu lew te awee ko ca yoon wañ digle ku gën a sàkkoo daleen di gën a jegeñal seen boroom tax dañuy wax ne man talaba rizqa ala ma yusannu fa huwa fi jihaad kuy sàkkoo wërsëg ca nañu ko taamoo ci yoonu lislaam danga mel ne ku nekk ci jihaad tuyaabay jihaad lañ la cay fay waji taxidoo te ngeen farlu inil tumoohu ndem am ngeen ko fixtisaarin ci ak yem cig gàttañlu an subahin walis ab regaay fi ixtisaar ko def fi xaalonk mel ne am na yax yi def fi ixtisaar xaaf an subahin walis regg fa innahu naka moom regg raxsu tiraarin mooy njëlbeenuk ak woru rasu bi firi bopp rek idi ngir sibahu sax si regguk jëmm ja minal xalaali ci aji lew mabda u kulli charri mooy tàmbalikaayu wépp ay fil axwaali ca mbir ya dafa wax ne ndegam lu lew yombut lu ngeen ci am ci lu lew da ngeen ko téye bu baax a baax bañ koo yàq nga xam ne bu ngeen dee lekk bu ngeen àgg mukk ci regg ndax regg googu moom moo jur ak woru taqoo ab reggaay bul xiif benn yoon ay yu baree bari ci lay soqi li ëpp ci li yàqal nit diggante ak boroomam mooy lekk ba regg ci lu lew dañoo jëlale lekk lu araam waaye li nga xam ne dalaa lew doomu lekk ca ba regg rek mën na laa jural ay wu rëy mën na laa jural ñàkk ma nekk sa boroom fii nekk na ci moom minal aafaati ci ay gàkk maa loo xam ne laa yu saa defu ko mën a lim daf yi dana dikk min haa ci ñoom sittun juróom benn fu naa fii di tux saa ngir bu dee fi ko takk rek googu la wax ne dafa bari lool yu muy jur ci xeeti musibaak lu yàqal doomi aadama yooyu daa bare bare ba nga xam ne mënees ta wax lépp lépp mu ne waaye na ci wax juróom benn nga dégg juróom benn yi mooy taqsi yatu qulubi wa wal xol ya ifsaadul xuqooli ak yàq xel ya ibtaaluhu akuk yàqam xifzan ak mokkal yu saxihu kook day wéral an nuqoola xeeti toxal ya wa siqalul aadaay ak diisuk cër ya عن عبادة ولس جام يلا وعن علوم أك ولس أي خمقم قد حوت يلاق نيو إفادة جرين وينصر تموي دمبلي الشيطان سيطانه ويقوي تموي دقرل اللذات بانيخيا أيضا بتي فاحذروا نجن وطنكو الآفات إلغاك جرم بانيغا خمني رجل كوارل ba ci jëkk mooy wawal xol xol bu wow ñàkk yërmaane nga xam ne suñ ko waaree du waaru bu jëmm ji gisee loo xam ne xolam war na caa jeex mu am ci yërmaande du tax xol ba jeex ca am ci yërmaande day dëgër këng rek wow xol googu saxoo rek dana koy waral ak naqarim xel mu xel mi neex neex su borom takko regg sa yu nek du xiif mukk mukk takafut muju naqari am xel muy ñaar ñettel bi moy taxa fut la nga mokalon takko regg day tax la nga mokalon nga fut ko manam mokal dalay joxe bu nopi da ngay far ngay far la nga mokalon ñentel bi moy takko sa yu nek day tax cër yi diis ba doo sawar ci benn xeetu xam-xam doo sawar ci jaamu yàlla juróomeel mooy regg day dimbale saytaane ndax saytaane yàlla da koy may muy daw ci nit ni deret nit di dawe ci moom bu dee regg deretam day gën di bari gën di daw ko defee saytaane di gën a am ci moom aw yoon juróom benn bi nag mooy taqoo regg day tax sa bànneex gën laa gañe bakkan bi loo ko jox ci bànneex rek mu xeeb ko di yóot lu ko ëpp te nag boo taqoo reggaay boobu day mel ne mboolem sa cër yépp yépp fuñ toll dañuy gën a xiif cër bu ci nekk la muy daa bànneexoon naka jekk loo ko ci jox mu lay laaj lu ëpp loola wa talabul xalaali sàkk lew fardun farata la yantami joj day askanu li kulli muslimin jëm ci bépp jullit bi xëyri waxamin ci ludul ndoomte wala ci ludul ak defle laayen faxu du jariñ alxilmu xam-xam wala alxibaadatu du caageenu jaamu yàlla bil akli and ak lin haram xaraami ñal aji araam hinda saadati fa sang ya dafa dellu li wat sakku lew nim doone farata ci bop julit ndegam julit mën ta ñak jëfëndiku ndax nit rek la te lu lew rek la sañe jëfëndiko kon neena julit bu ne sakku lew farata jëm la ci mom ndax mu ne lay feeñ ëllëg ci àllaaxira muy xam-xam ak jaamu yàlla dala faa am njëriñ fekk koo ko daan moytu lu araam waaye koo xam du moytu lu araam moom xam-xamam akuk jaamu yàllaam du ko amal njëriñ bu ëllëgee kon xam-xam lu mu bari bari ak jaamu yàlla lu mu rëy rëy te koo koy lekk lu lewul rekk jaamu yàlla ga ak xam-xam ba lépp day mel ne pënd wax tajiroo na ngeen di wattandiku at lëf yi ca la nga xam ne ay ngeen bi kaw ni ci ak nekkam di aji araam aw zanantumoo wala ngeen jartu ko wal takk tafoo te ngeen doyloo bi maa ci la nga xam ne yuq mu dana taxawal asul ba ndigg la mina taxaami ci aw ñam li tutiyoo ngir ngeen topp arab ba buur lépp lu ngeen di jëfandikoo daal leen wóor ne lu lew la waaye lu leen wóor ne daa araam mbaa sax ngeen jort ne daa araam dee leen ko moytu lu ñu sib sax bi sañoon ñu moytu ko mu dellu wat ne bu ngeen dee lekk di ngeen di lekk rek lu mën a sàmm seen wéruk yaram te bañ a àgg ci reg bañ a ëppal waaye nag na ngeen lekk ba lekk loo xam ne mën naa sàmm seenu wér ndax wér mooy tax nga mën a topp yàlla sa boroom kon lekk ak naan ak nelaw dara mënu cee ñàkk ndax yàllaa ko bindee doomi aadama waaye lu ci nekk da cay def rek lu yem te bañ a ëppal قد أخبرت خبارنا أم جميع المؤمنين ndey mboolem way gëm ñi xaishatun te mooy soxna xaisha dañoo jàng xaishatun maas ko yaari maas ko ndax way wi rabia yàlla doole gërëm an xaa walis ko man yàlla mi nga xam ne yuinu dana dimbalee anna xiyaalal mustafa la boo ci tàmbalee nga ne inna ayaalal Moustapha naka njabootug kañu tànn alhaadi kay aji jubal albashiri kay aji bégal ka gëm ci àjjana lam yashbahu mosuñoo regg yow may ni ñaari fan min xob si shairi ci mburum peppam lors ay li ci namu mutataa bi ay ni ñaari fan yi aji tegaloo mooy yu sësaloo xataa xobida ba faateef ko salla yal na dool tedd nga alayhi ci moom man yàlla mi nga xam ne xadaahu jubal na ko war tadaa te mu gërëm ko li mu wax ci mbirum xiif ak bañ a lekk da cee bëgg a joxe ay tegtal mu ne soxna Aysatu mi bokkoon ci ñi yonante bi yoroon te mu sufoon ci moom lool nee na waa kër yonante bi day mësuñoo tegale ñaari fan ñoo xam ne mën nañ ca am lu ñu mën a lekk ba suur mburu mu bàyyi ko ci peppum lors rek nga xam ne xëy na sax du nekk mburu mañ gën a taamu mësuñ caa mën a am lu leen mën a suur ñaari fan mel ne kon mësuñoo mën a tegale ñaari fan am ca lu leen suur ci mburu sax ak doonte du mu ñuy taamoo noona wa axbarat tamu xabaar moom soxna Aïcha bi annahu ci naka yonent bi tuufiya faateef na ko walay sa indahu te déet nekk fa moom layaa dun dara uxfiya loolu denceef na ko bàyyi ko ci axfa bi firi nëbb na yukalu loolu def na ko lekk illa nisfu wasqin ndare genn wàllu wasq min sha'irin ci lors wa axbarat tamu xabaarit aydan ba tey radi yàlla doole gërëm an ha waris ko alqadiru yàlla mi aji atan bi annahoo ci naka yonante bi kaana nekkoon na yebiitu di fanaan taawi yen di aji xiif huwa moom ci boppam wa ahlu baytihi ak ñoñ neegam manam wa kërëm rek layaali ay guddi tata bu han ci ak toftalo duna hasha jul abrar wa ghadain akub añ salla yalna dol tedd nga alayhi ci man yalla mi nga hadahu jubal nako muqtadan mbir mu ko ñu roy mu ne soxna ne yonante bi muy génn àdduna bàyyiwul dara dara ci xeetu luñ mën a lekk lu may lu tolloog genn wàllu wasq ci peppam lors wasq dañuy wax ne mooy juróom benn fukki saa saa nag boo ko tollaleeg ñaari kilo day mel ne kon wasq war naa tolloog bërigo bu tegal ñaar fukki kilo kon soxna si daa bëgg a wax ne yonent bi ba muy génn àdduna bàyyi fi dara luñ mën a jëfandikoo ci xeetu lekk lu may lu tolloog juróom benn fukki kilo yoo xam ne peppum lorf la loolu képp la bàyyi ci luñ mën jëfandikoo mu ne it moom soxna ay sa yonent bi moog waa këram daana ñu tegale ay guddi guddi guddi te cin du fa tàkk nga xam ne amul añ amul reer xëy na tàndarma walla seen dëkkandoo may leen lu mel ne soow mbaa lu ko nuru rek waaye amul dara lu ñu togg tegale rek ay fani fan te cin du fa tàkk en loolu yàgg naa am ci kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wajaa dikk na ne anna dirahahu naka mbubum koŋam ma mbubum koŋ mbubum xare lay doon yowmal wafaati ci bisub faatu ga rëhmun ak tayde la radal yahoodi fa yahood ya fi qawli ruwaati ci wax yi way nettali ya mu ne siiw na ne yonante bi ba muy génn àdduna fekk na mu tayle woon mbubum xareem benn yahood yahut ba jox ko lu bokk ci xeetu pepp lors moomu la ko yahut ba jox yonent bi tay la ko mbubu xare moomee loolu lépp tegtal la ci woyofal gu woyofaloon àdduna yàlla mayoon na ko montagne yi soppiku wurus mu moom leen ëpp la ñëpp ñëpp waaye mu jomb lu loola